ngi lay félicité ci koro ci bëri di nga ya, bëri ak li nga génnee jàmbale macha allah ñenn ñi ne sa digganteeg Ama Baldé bëgg na ci mbër yi amateur yi ñenn ñi sa digganteeg Balla Gaye bëgg na ndax da ngay xaar promoteur bu indi avance ci ñaar ñaar ba jël ko dafa am kenn koo gisee ci ñaar noonu ndax ñëpp ñu ngi wax ñaar adversaire yooyu yëpp koo ci bëgg. waaw loolu nag pour man mën ma ci wax nii quoi rappelé sama contrat moo fi mooy confirmé waat sama mané ne ma ci wax nga jéggal mo loolu après na ci wax leneen question boobu mënu ma ci wax parce que bu lu ma war wax pour le moment pour le moment li ma wara wax moy ci li may di féliciter Mansour di féliciter la de Guerre waaw ci manam en tant que ngor quoi waaw nit la bo xamantene ñu luñ séggul lañ ségg jeex na jeex ok di leen ñaanal jàmm waaw di wax né man question yi nga xamante ne tey si fii ma toog nii ci loolu laa gën a mën a posé mhm. wax si mais li nga xamante ne mooy combat boo war a bëre loolu ba ngeen di dem ngeen laaj ko Max Mbargane waaw parce que moom rek laay déglu ah. <laughs> waaw waaw c'est man dafa am lu ma la bëggoon laaj rek par rapport ak xam nga combat bi parce que lamb saa yu amee rek ku nekk dina am noo koy jàngate ñii dañ doon wax ne Siteu dooleem maye bu ko mu bëreeg ténor yi. am na ñu bëri ñu doon wax loolu parce que xëy na sa maslak yu mel ni kii noonu mais gis nañ ne bëri naat ñaari tenor wala sax mën nañ ko tuddee ndax Zarko du mbër mu ndaw Papa Sow tamit ñu ngi koy ziar bu baax a baax léegi nekkatul mbër mais ku ne xam ne nekkul mbër mu ndaw Lac de Guiers 2000 waxi noppi Lac de Guiers 2 la gagné par avertissement Siteu bi muy dégg loolu ndax loolu moo ko poussé woon mu liggéey à que bu ñëwee ci bés boobu lu mënti xew même bu ñu koy gagné tamit desu ko jàpp daane ko ci wal bi gàng waaw kone bobu li ci war mhm. wax Dole, dole, doole mhm. Dole doole moo ci gëna a dole gëna tuti a tuuti ah ah do tax lolu parce que xam-xam moo ci jëk technique. technique waaw. technique moo jëk ta tay lolu woné na ko man sa baram sa benn baram bu mag sa bu mako jappé damay bëre ba man dama la ci daan waaw parce que lolu moy technique après puissance ci sogu a puissance nak lolu yax la. nit ki mun na ko am mun na ko bañ a am mais ñi ngay jëflante boo ko amee boo ko amul ñoom xam nañ waaw man fi ma yegg si caaxaan ci jiwuma fi waaw te Lac de Guiers pour l'instant dama koy joxaat li nga xamante ne moom la moomoon ci man muy mag muy nit boo xamante ne d'ailleurs bu muy bu muy imposé loolu la ko am mais làmb moo ni mel. làmb moo nekk loo xam ne xëy na boo leen xasee ba signé waaw yaram bi tàng. xam lu ma la wax man sama gëm-gëm ak sama vision mooy man amul mbër bi bëre si arène bi koo xamante ne yow góob man dama lay daan. voilà gëm-gëm boobu moo nekk ci man moom laa doxalee. ba tey te keroog loolu laa wane. te combat bi gis ngeen li gis ngeen li ci xew. waaw li ci xew ñëpp gis nañ ko lépp lu ñu war a def def nañ ko man def naa ko man loolu laa waaw li ma waxoon def naa ko bari naa xeex naa waaw mais tey victoire bi ñu mu amee du question nag dama saltal victoire yi jàmbur man ba léegi man gëwuma dama daanu gëwuma ko waaw parce que lu tax gëwuma ko mooy avertissement bi ma jox ma am ko te ma mérito ko man dama gis ne avertissement boobu c'est la même chose là man fi ma doon séntu mooy dañuy dem prolongation ok man sama puissance la waaw man foofu laa ko commencé imposer. da ngaa nangul defet bi quoi. non du question defet amu fi. defet amu fi da nga naan lenn am mooy arbitre moo jël victoire jox ko Lac de Guiers waaw loolu CNG nangu na ko mais man laa wax man nangu ma damay daan parce que bu ma ko nanguwul tëdd naa bu yàgg. Hmm? waaw dama bañ ba tey. Hmm. waaw. Hmm. am na solo aja Fatma. loolu mu jur benn polémique Guédiawaye ñu dégg version bi nekk que ni Siteu Balla Gaye koo wax ni avant bi koy mel ngeen ko soo daanee ba nga défense ñu gis ni après Siteu dañoo bëgg a xam ne loolu lan la demee parce que ba tey Siteu wax na ko mais dafa dugg polémique ba tey ko fa naan est ce que loolu loolu loolu moo ci nekk li ma la wax tey wax naa la ko nee naa la moom a woo waaw mais da nga waroon a laajte woo woo kañ la. ah loolu bu may préparé sama combat ma ne ko Papa Sow bu njëkk bu yàqu woon loolu ci la amoon li wax boobu sax Gambie la ñu fekk ñu wax ak maamala dami ni mu wax man Balla Gaye nit ku baax la champion la aussi yooyu nekk champion boo xamante ne lu mu def fii si làmb yow bu dee keneen def na ko waaw c'est la même chose parce que moom gis nga ko pour yóbbu tur Guédiawaye gis nga la nekk pour yóbbu tur Guédiawaye kon tey ñooñu lu tax waruñu wax ñun tey lan moo tax parce que tey ñoo bokk business bi te Balla ñun suñu grand la lan la ngeen ñu nekkee sama grand ba may mais bala kay déggante wu maag moom si may préparé loolu avant Papa Sow bu njëkk ba la boobu suñ deuxième combat bi jàmbaar dëgg maag Papa Sow su amagul waaw kon pour wan la ne nit nekkul ne da ngay dégg tëll rek ne rajax waaw man nag aw ma jot bu may leeralee comme lu métti loolu non non man aw ma temps boobu waaw mais li ma la mën a xamal maa ci làmb te làmb gis na gox bi ma jógee gis na kii yi ma jógee samay mbokk dañ may yaakaar ngemb ko kon man caaxaan waruma waaw su may wax nag nit day yaakaar ne gëm-gëm kese laay waxee mais dama ci boole mën-mën waaw ak nangu nangu nag mooy topp sa ginnaaw wax jiw topp say ginnaaw mag say ginnaaw staff nga ne mag si mbagaan sa yeneen kilifa yi ma yor bu ñu ma ne defal ma def bàyyil ma bàyyi loolu moo ma indi fii li ma indi fii nag jëlewu xam lu ma la ah caaxaan jëlewu ma fi de <laughs> gis nañ ni. mari bomba site ñu ngi leen cherché di combat ñu gis ne site ñëw imposé boppam am na benn instant boo xam te ni yaa ngi bëri nga teg yàlla ba waxat ko ne ko ñëwal na fii sama paquet rek laa est ce que tey lii boobu gars yi ko bëggee ak lan moo la poussé tey ba nga dem ko sa combat ak sa liggéey parce que ñu bari dañoo yaakaar ne combat bi dinañ nekk mais dañu ñëw gis benn site lan dafa am loo xam ne sa yokk ci diggante bi wala site waaw xam nga nag jàng nag moo wax la benn affaire man gëm-gëm bi may doxee man dégguma sax li ñuy wax man wax dëgg fa la xaw ma li ñuy wax mais man yow man su ma xoolee samay famille xam ne làmb nag moo may teral pour ma teral leen yow loolu damay jaral sa suuf damay gën a yow maanaam dama la wax ne làmb ji dama la ne góor bu fi ngemb mënu ma te nee naa la li ma fi dugal seen mbir génnewu ma waaw loolu nag laay wax mais tey dama bëgg maanaam CNG bi CNG gëna a joxaat bu bari seen dayo gëna a toppaat làmb parce que tay bo xolé combat bi kéro même arbitre yi doon arbitre sa yaakar nañ làmb ji du am sa 3 minutes waaw sérieux deug rek mo neex yalla parce que tellement que dañ ma doon yàqamti lo lepp te man bobu ma ngi def tepp tepp du mo lay sax déglu wallahi parce que sama yoon la neex mais bima ma ñom xéetu xeetu bima bi manam jaaxal ne sax mo tax sax yow ñu war top sa top ñu mais man ak Lac de Guiers bëre bu rafet lañ bëre voilà bëre bu rafet lañ bëre te man chaque jour damay joxe mais man dama am ma yem dama am conseil làmb di dama ñëw ak conseil ñëwuma ak sama sama philosophie ñëw ren bëgg a def ñëw noonu dama ñëw ànd ak samay conseil ñu ne ko fii nga yem ma yem ko ok man def naa lépp lu ma war a def lépp lu ma war a def man nit ñi gis nañ ko def naa mais wane naa fulla wane naa njàmbaar wane naa gëm parce que nit ñi duñ topp sa ginnaaw te du góob doo gëm sa bopp waaw loolu moom wane naa wax di am mbégte ci li ma bëree man am ci fierté waaw. Mm-hmm. Fallou. ETDR établissement Touba Darou Rahman des entreprise Boumak mag bu BTP travaux de bâtiment génie civil manam lépp lu jëm ci wàllum tabax réhabilité wala réfectionné dañu Tahoba taxaw établissement Touba Darou Rahman su la neexee mën nañ laa jox gros œuvre ak second œuvre gros œuvre moi. fondation élevée tabakh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 am na ñu mail itamit boo xamante ne ni mën ngeen faa jaar ETS Touba Darou Rahman arobase gmail point mën nañu laa defaral itamit boole la ak suñu ay ouvrier prestation de service bu mucc ayib ngay am foofu mobilier de bureau de dernière génération am na ci ETDR location de voiture maanaam ETDR moom bàyyiwul dara moomeelu réew mi la établissement Touba Darou Rahman yéen doomi réew yéen la fi